السلام عليكم سوني بوك تيليسبيتاتور شيخ امي انترنت بو جاسي تي في دال لينا تيام ci seen émission man ndaanaan laa daal muy ndaanaan boo xam ne kenn du ko lam-laame muy Mengue Mengue Ndiaye de benn responsable politique boo xam ne ñëpp a ko ràññee fii si Thiès benn dëkk ñaari gaar bokk fi nga xam ne moo di APR Mengue nuyu naa la ma sister de valeur fay naa la bu baax di la ziyaar bu baax a baax di la kontaanee am mbégte ak contentement di la dalal bu baax a baax ah, Mengue sa dernier temps dama dégg ñu ne Mengue en tant que responsable dafa benn structure bo xamni c'est féminin ma mhm. bëggoon xam structure bi structure lu mu doon waaw ndak dina ma neex trop ma wax ci loolu tout d'abord damay nuyu téléspectateur yépp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan eh, di wax ni par rapport ak question boobu dañuy di ay ndaw ñu ay ñu nekk ay ndaw nekk ay acteur de développement avant tout nekk ay jeunes yo nga xam ne dañuy yëngatu ci li nga xam ne mooy jëmale cees kanam

dajale leen waxtaan ak ñoom boole leen ci benn kuréel boo xam ne dina mën a tax ñu fay échanger mais aussi di fa mën a jooytoo seen i jafe-jafe mais aussi di fa mën a xàccandoo di fa mën a dóorandoo looloo tax ñu créer structure bu ñuy tuddee si la ñu bokk les jeunes filles d'abord di jug pour jàppale ndaw ñu jigéen ñi uniquement

benn moment rek après day day day romb. Mm-hmm. ndax mën nga ñu indil quelque idée lu waral si lañu ñu bokk. waaw si lañ bokk bi li ko waral mooy dañu gis ne par rapport ak euh, li nga xam ne dañ koy yëngatu ci suñu wàll ci terrain politique bi euh, ndaw ñi jigéen ñi joxuñu leen àq ak yelleef bi ñu moom. tey boo demee ci instance de décision yi nga xam ne foofu la ñu war a jëlee di nasee di noccee ndaw ñu jigéen ñi baat bañ fa war a am amuñu ko boo demee ci structure yi ndaw ñu jigéen ñi baat bañ fa war a am amuñu ko taxawaay bañ fa war a taxawee taxawuñu ko ndax dañuy jël poste de responsabilité yëpp dénk ko suñu frères yi te gëm nañ ne si lañ ñoom gaa dañu war a ànd ak ñoom liggéey mais dañu war a xam ne ñun ci la ñu bokk ci mbir mi te nit ki nag li nga bokk nag dañ la ko yow war a jox sa cër bi nga xam ne moom moom nga moom donc ci loolu la ñu créé tour boobu pour wane ne ñun dañoo bokk ci mbir mépp lépp loo xam ne développement la ñu war cee yëngatu dañ cee war a yëngatu ci la ñu bokk lépp loo xam ne ci wàllum politique la ñu war cee yëngatu dañ ciy yëngatu ci la ñu bokk jigen kanam la dañ cey wara bok donc lolo tax ñu ne ñun si lañu bok ñun les jeunes filles d'abord les jeunes filles d'abord ñun si lañu bok ba tax na est ce mbengé mën na xam ni ndax dafa am ben protection bu nekk seen ginnaw wala structure la bo xam ni yene ko créé entre yeen waaw euh, ñun kenn ben politicien nekk suñu gannaaw parce que on se dit que on est des jeunes leaders euh wara mëna taxawal lenn parce que dañu yàgg ci terrain bi nag di ci dox di taxaw ak ndaw ñi di wax ak ñoom ñu gis seen i mbëbët seeni i jafe-jafe seen métit ñu ne kon ñun dafa laaj ñu booloo ci benn kuréel taxaw ànd di xàccandoo di doorandoo di nasandoo di neccandoo mën a am autonomisation boo xam ne autonomisation des jeunes fii lay doon mën a am benn euh, euh, benn accompagnement des jeunes filles benn organisation boo xam ne day nekk typiquement pour les jeunes fii ñu mën leen ci accompagner waaw ci lañu bokk boobu képp koo xam ne jeune fii nga âgé nga de de de de quinze ans ba trente cinq ans yaa ngi ci biir ba jëm 40 ans yaa ngi ci biir parce que am na âge boo xam ne yéen euh, mun nga ko am peut-être mën nga mën a accompagner say say say rak looloo tax ñu sax ñu egg ba âge yu 40 ans donc pour mooy limite bi donc képp koo xam ne gis nga sa bopp war nga mën a taxaw ëllëg mën a taxaw mën a yor réew mi wala mën nga taxaw ëllëg ci instance de décision mën a défendre jeunesse féminine yi jë mën a defendre ndaw ñu jigéen ñi donc dañ la ciy woo. loolu rek moo ñu gën a tax a jug pour que ndaw ñi jigéen ñi mën a gis seen bopp ci lépp. maanaam yaa ngi woo bépp autorité. waaw ñu ngi woo autorité yi nekk Thiès yëpp nag parce que dañuy doog a door ay ndaw lañ di doog door. amaguñu lenn nag suñuy ñaar dërëm ak suñuy ñetti dërëm lañuy dajale di defee suñuy propre activité pour mën a dem ci terrain bi mën a liggéey di def suñuy propre bu ji mën a def suñuy propre financement mën a def suñuy propre formation mën a def suñuy propre accompagnement yi nga xam ne mooy jeunes yi nga xam ne ñoo nekk suñu biir bëgg a dë suba tekki dara ci réew mi. ah ba tey duma ko bàyyi benn yoon méngé ba gannaaw ba nga expliqué sa structure ba pare damay xaw a ñëw si actualité tuuti. Mm-hmm. si diggante ak waaw diggante Sonko ak Adji Sarr moom man sama kàddu du ci bëri yaakaar naa am naak amul ndaw ndaw bu jigéen moom bu taxawee ne euh, sàkku nañ ma wala euh, làmbatu nañ ma wala def ma nañ ma naka su du noonu rek ba jaral ko mu dem ci yoon rek képp koo xam ne def nga ko ko war nga koo war ngaa wuy ji yoon parce que dañoo nekk ci état de droit nit ku nekk nag ñu la defee naka su dul noonu nga dem ca yoon yoon woo ka nga xam ne moom nga ko sékkal muy que ce soit muy nga nekk président wala nga nekk leneen ak leneen da ngaa wure wuy ji yoon. dafa mel ni ni nga waxee dafa mel ni Sonko da nga bëgg a wax ni Sonko dafa def. non euh, ndax ni ndaw boo xam ni su fekkee def nañ ko naka su dul noonu mu dem si yoon kon ça veut dire dañ koo def naka su dul noonu. non du ma ne dañ kaa def wala deful parce que fekkeewu ma mais dama ne en dans le cadre bal ndaw bu jigéen bu taxawee ne man yàqataan euh, nañ ma wala làmbatu nañ ma wala def nañ ma naka sa dul noonu mu dem ci yoon kon kooku nga xam ne moo ko def lu nu mel dafa war a wuyu ji yoon parce que loolu la yoon santaane ndax ñun ay jigéen lañ dañoo am suñuy àkk ak suñuy yelleef kon nag du ñu nangu benn góor wala benn sàmba booy jóge fee di ñu def naka su dul noonu donc bu ko naree bu ku ñu nar a def naka sa dul noonu ñu dem ci yoon yoon nag bu waree def liggéeyam kaka def na nga dem na dem wuy ji yoon Sonko Adji Sarr wax na def naag deful na dem wuy ji yoon man loolu moo ci sama wax du ma ko bàyyi benn yoon ba tey dama koy posé waat question rek si diggante Mambay Niang. Ah, mhm. problème bi loo ñu si mun a éclaircir. waa diggante Mambay Niang ah, eh, gis nga affaire Prodac boobu. Mambay Ndiam ah, mm, eh, c' est un ministre boo xam vraiment ñun dañ ko xam ci sérieux ñun bañ koy xam ay ay ndaw la ñu tuuti yaakaar naa eh, ñu xam ko ci sérieux xam ko ci liggéey xamuñu ko ci caaxaan nag bu dëgg dee dëgg te wax dëgg yàlla ku taxaw ne man képp ku ma tuumaal ci lii nga xam ne mooy affaire Prodac nga wax ne damaa def nag damaa jël xaalis euh, Prodac lekk ko wala ma def ko naka su noonu dama lay porter plainte nga wuy ji yoon te ñëpp ñi nga xam ne porter na leen plainte dem nañ wuy ji yoon ça veut dire que moom dafa nekk ci dëgg dafa nekk ci yoon tuuma la nag nit bu boo ko tuumaalaalee ba mu yóbbu la ci yoon war nga mën a dem yow nga wax tuuma googu fa nga ko jëlee te Mame Mbaye Niang kenn ku ne xam nga ko ci liggéey bu dul woon bu fekkoon dafa def Prodac naka sa dul noonu tey ji du Macky sàll am na fulla ak mat gu doy na du ko indiwaat ci biir gouvernement am. léegi gannaaw ba loolu lépp amee ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko dafa war a wuy ji léegi wuy ji boobu nit ñaa ngi waaj ndax ku nekk maa ngi dégg sax ay rumeur nit ñu naan téye seeni doom ndax dafa nar a metti loo siy wax. man lu ma ciy wax rek damay appelé appelé waat à la raison jeunesse bi. parce que dañu toll ci jamono joo xam ne jeunes yi dañu war a conscient nañ conscient nañ mais nañu gën a conscient gis nga nit koo xam ne ba muy def naka su dul noonu woowu la ah ñu en plein wur fa mu génn ne day defi massage am fekkee woo ne wu na tey ñu woo ko ci yoon mu ne bis bu ñu ma woowee procès ma dem wuy ji tey ñu woo ko ci procès mu ne du wuy ji naan la génnal nga xeexal ma kooku pour man ndaw bu ko dégg war ngaa mën a xam sa bopp ndax koo xam ne neewu la kaay ñu liggéey euh, du conférence de presse ne naka la ñuy fexe ba ndaw ñi mën a am liggéey naka la ñuy fexe ba ndaw ñi mën a mën a mën a bénéficier wu ci ci ci ci opportunité yi nga xam ne moom la réew mi di am naka la ñuy mën a def ba euh, nu mu tuddati euh, der terre bii di daw Sénégal mënu cee mënu cee gën a gis boppam naka la ñuy def ba Sénégal jëm kanam waxul ci loolu lépp lu dul chaque jour waa ñu ngi leen di woo ci violence pour man ndaw ñi nañu am fulla ak fayda ne xam ne jamono ji ñu toll nekkuñu ji jamono ji kenn ci violence li ñu jamono jamono concrétisation la ñu nekk ànd liggéey mbax sa le président Macky sàll loolu la bëgg te ndaw bëgg na ndaw Sénégal am ndam. ci sama dernière question bi may wax rek mooy barki Dembo Ndiaye ki nga xam ne moo di Abdoulaye jéey dafa woote fii nga xam ne moo di place de France mairie mu fees dell ba tuur lan. Abdoulaye Dieye. waaw président Abdoulaye. bari ñu ngi doon wax naan mën na ko mënu ko. président Ablaye Dièye dañ koy dañ koy tatagal di ko jaajëfal ci sargal bi mu def bërki démb fii ci promenade Thiès waa ku ne gis nga ko mu def lu lu lu gëj nag parce que keroog yaakaar naa ku fi ñëw gis nga li fi ne képp kuy responsable nekk Thiès wala nga nekk ci département Thiès wuy si nga ko te loolu dara may ko ko lu dul nekk un homme social nekk un homme serviable nekk un homme disponible pour sa communauté te Ablaye Dieye ku ko xam xamee ko Thiès ku ko xam xamee ko ci taxawu doomu aadama yi kooku nag bu doon comme daf bu taxawalee na fii ba xaaj ba ba ba fajar nit ñi dañ koy wuy ji te wax dëgg yàlla liggéeyam rafet na rafet gi mu rafet ak liggéey bi mu liggéey cees moo tax président dénk ko tey jii AIBD bi mu nekk fa directeur général kon jii bu ñu amee lu nu mel suñu président sédd nañu loolu kay delloo njukkal président makki Sall ndaw ñi mag ñi jigéen ñi ñëpp ay génn ñëpp ay génn ndax wax dëgg yàlla liggéey na ko fi nag liggéey na ko fi te nikki nag li nga liggéey rek moom ngay jëriñoo. Mhm. waaw ñu koy jaajëfal bu baax tey kat dañu amoon mbégte ak contentement di dalal sama sœur bi di Mbengue Ndiaye di responsable politique APR. Eh, mbenge yi wax na structure wax ñu lepp la mbenge sa mot de la faire rek la laaj bala may tej lu may eh, di la jaajeufal ci ci invitation bi wax deug yalla di contane ñep di wax ne vraiment contane na di jaajeufal ndaw ñi nga xamne ñu jigen ñi nga xamne ñoo nek ties nord nek sama ginaaw di ma gungé suba su nek suba ngone guddé ak beccëk dama leni wo sa su ne ñu juk andak man ngir liggéey pour luñu jëmele kanam donc dama leen di jaajëfal di wax ne ndaw ñi nañu gën a takku nañu gën a ànd nekk benn nañu ne xam ne avenir u Sénégal ci suñu loxo la nekk te buñ ko taxawoo incha allah dinañ ko téewee nañ ko war a téewee. ni Thiès Nord dama naroon tëj mais dama bëggoon xam ndax si lañ bokk bi Thiès Nord rek la wala Thiès yëpp la. waaw pour l'instant ñu ngi Thiès Nord actuellement parce que dañu bëgg a mm, euh, euh, occuper terrain Thiès Thiès Nord ba mu mokk ba waa Thiès noor yëpp gis si seen bopp doog a mën a génn nag gën ko gën a yaatal ci Thiès Est ak Thiès Ouest. mais nañu xaar nañ ñu xaar ne xam ne incha allah dinañ ñëw fekk si leen fépp ñu nekk incha allah.

ci internet bi di len remercier bu baax baax di am contentement di dalal mengé sama sœur. merci beaucoup merci beaucoup. mbokki Sénégal mbokki Ndakaaru mbokki bir rew ak biti réew yeen ñi jaxlé woon am ay jafé jafé jëm ci seen walu aduna wala sax ci li nga xamante bi moy ci seen walu wirgi gi yaram leen ngeen jox ma nopp bu baax bi ma tektal leen kii ma leen di bëgg wax muy Serigne Modou Ladiane borom jaasi di borom xam-xam bu kenn dootul naatable xam-xamam ci biir réew mi ñi nekk bitim réew sax te musa jëflante ak moom ñoom ñëpp nangu nañu ni kii yàlla am na lum ko may ginnaaw bi mu jàngi xam-xamam ba mokkal ko moom mii di dafa jóg ngir jàppali askan wi ci lépp lu jëm ci wàllu seet wala ci wàllu ñaan ba ci wàllu xalwatu yow mi ndoxum siti sonal jàpp sa yaram di ko tàngal di la tàyyelloo ba tee laa def lu bari ci sa àdduna moo xam rab dalaa sonal yow miy góor ba jàppale yow mi jigéen ba teelaa am borom kër dana faj lii nga xamante ni bii mooy hémorroïde moo xam bi nëbbu la wala bi feeñ muy bi tubaab bi tudde interne ak externe dana faj li nga xamante ni bii mooy cat ak wàllu tëju dangaa tëju sa buntu wërsëg yépp tëju loo yaakaar mu tas koo digaaleel mu wor la dawal nga seeti Serigne Modou Ladiane boroom jaasi ji mu jàppale la dina yëngu ci li nga xamante ni bii mooy ci wàllu bayre am na ci ay sangat yu baax ba ci yi nga xamante ni bii dafa ëmb kaaxaangi ak bayri waaye ak mucc yow mi nga xamante ni bii danga nga bëgg a tukki di lijjanti ay këyit mu jafe la lool ba ci yow mi nga xamante ni bii yaa nekk bitim réew bëgg a ci sam réew ngir mën a am ay këyit moom mi la dee boo jokkoo ak moom mu jàppale la ci yow mi am jafe-jafe jëm ci wàllu sëy maanaam danga nga néew kàttan booy jotee ak sa soxna dangay ngay a jot sa bopp dana faj fièvre yii ma lay bëgg a limal yow mi diabète sonal wala tension wala hépatique A wala hépatique B ba ci nit ku paralysé moom mii de da koy faj ba mu jug doxiwaat ay soxla ba ci yow mi nga xamante ni bii ngelawu seytaane daf laa dugg yow mi am jafe-jafe jëm ci wàllu am doom fu ne dem nga fa taxul sa aajo faju benn yoon yow mi bëgg ñu yokkal la sa sàkkara moo xam da ngaa bëgg mu gën a gudd lépp lu jëm ci wàllu faj wala ci wàllu ñaan wala ci wàllu ubbeeku ci wàllu kaaxaangi ba ci wàllu bayre ci wàllu kàttan jëm ci wàllu sëy ngir sa néegu sëy gën a neex ba ci yow mi nga xamante ni bii dangaa bëgg gàllaaj gu la mën a aar ba doo dugg kaso dama ni fu ngeen mën a nekk ci réew mi wala bitim réew gaaw leen ngeen jokkoo ak moom muy Serigne Modou Ladiane borom jaasi gi ci le 77 922 46 28 ou le 77 320 34 07 wala ngeen fekk ko fii ci Sébikotane ci quartier Escale ngir mën a tàqalikoog seen i jafe-jafe ci wàllu seet wala ci wàllu fa